asalaamaaleykum euh, mbokk waa internet bi ñuy suivre di ñuy déglu ci cent vingt 221 people li ñu ko baaxoo di def ak sëriñ sépp tey dañoo del siwaat fii seet si benn sëriñ bu mag ñu koy duppee sëriñ euh, moor Ba sëriñ Mor Ba euh, faw faw seynu faw seynu lañ koy duppee mu bokk ci sëriñ si nga xam ne yàlla may na leen lépp lu bokk ci wàllum paj ak wàllum ñaan ak mhm. lépp loo xam ne dëxëñoo na ci wàllum asraar mhm. sëñ moor Ba ñu ngi lay siyaar di lay dalal ci 221 people auzu billahi samiil alim min sharri seytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim waltaqina sara nasara wal yahut wa sara iblisa wa kulli si johot wal jinne wad dajali wa sudaani fi sarx wal maxrib wal bidaani wa sara ma fi l ardi turran wa sama min saahirin wa baatin iktatama wajdub lahal xayri min al jihaati assetti wa kiyaanil afaati barki cheikhul xadim ñi ngi leen ñu fayu nuyoo di wax nuyoo ba gën a yàlla ci jullit muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noonu tamit leen koy jàllee di nuyu sunu xalifa général di murit di Seex Muhammadinal Muntaxa di ñaan sunu borom yàggal ko fii dëbb ko kàttan ba naal yi mu am ci liggéeyal ko Seexul Xadim mu àggale ko nu kawe njortam ci barki Seexul Xadim ak xalifa généraux yi nekk ci senegal fépp rek ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Mor Ba euh, nii yow it euh, ginnaaw nuyoo seet yu sell yooyu ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal ci deux cent vingt et un people nañ ko baaxoo di def ak ñëpp. Mhm. suñu première question dañ koy jagleel lu bokk ci wàllum ndombo ndombo dama gis fii ndombo yoo xam ne yu bëri la. Mhm. gis naa fi ndombo boo xam ne mu ngeek xaw ma ñeenti yi ñeenti xaw ma nuñ ko waxee ay téere ak boo xam ne téere yu bëri la yore. Mhm. ndombo yi ñu ñëw ci sëñ Mor. waaw bu dee wàllu ndombo gi. ndomba yi dañ ciy liggéey liggéey yu ñàkk maanaam liggéey yu wutee daal ndax boo xoolee comme ndomba gi yàgg nañ koo wane boo xoolee ndomba gi moom yàgg nañ koo wane moom ndomba gi dañ ni doy na sëkk ci kaaraange ci nit koo xamante ni day wut lu ko ar ndax ndomba yi boo xoolee daanaka nii ñu ko liggéeye boo xoolee téere yi ñu ko bootal mu ngi doon 14 téere te nag katoos mu ngi jàpp tur yàlla bi na wahaabu kon loolu wahaabu si turu yàlla yi si la bokk mhm. waaw mu ngi doon lu am am solo léegi nag bu fekkente ne nit ki dafa da ko yittewoo maanaam bëgg ko boobaa bu ñëwee ba wooñu incha allah dinañ xool ba xam nit war na koo mën a amam déet mhm. ndax dafa am ñu ñu bari ñoo xamante ni tey bu fekkente ne seen biddiw branché wut wala dëgg-dëgg ñoom activité yi ñu war nekkee ndomba gi da leen di ëpp doole boobaa mën na leen a tëj bu fekkente ne seen i business mayu leen ko wala seen am-am yàggul foofu maanaam da leen di tëj ndax lii li ko tax a jug dëgg-dëgg mooy nit ki nga xam ne dafa nekk dafa doon am de affaire bu mag a mag a mag di jëngatu ci wàllu kii loo xam ne dina génne ay xaalis bu bari loolu moo ko tax a jug. Mm-hmm. bu fekkee moom la nag ndomb yi benn bu si ne téere yi dafa am lu ko tax a jug am na si boo xam ne rab la am na si boo xam ne wàllu kaaraange la. am na ci boo xam ne yàgg nañ koo liggéey di wax naa ñàjjaal bi da ci am am na ci boo xamante ni ci wàllu comme sayaat yi nii mooy seytaan yi mooy bu dee man nees ko leeral comme njukteef yeeg yooyu yëpp da ci am am na ci yoo xam ne wàllu police la accident lépp lépp daal mënee su koo lim waaye ndomba gi moom képp koo xam ne am nga ko gëw ma ni di nga taxawati fenn di di fa laaj kaaraange. Mhm. waaw ndombo gi ndax euh, aussi âge jóg na ci maanaam ay at am na ci ñoo xam ne daa at yoo xam ne ñoo ko war a jël. ak mhm. ñaata gaaw la ndax soo koy jëfandikoo da ngay tëj yëpp. waaw bu dee bu dee comme at yi moom mi ngi dépendre ci fekkente ne nit ki atam at yi. maanaam ci gaaw yi lay dépendre bu fekkente ne nit ki ay atam dafa néew am na gaaw yu mu ko war a gaaw bu fekkente ne nit ki atam dafa bari tamit am na ay gaaw yoo xam ne moom lañ ko ci defal ndax mu man koo moytu waaye ndomb gi képp koo xamante ni am nga ko maanaam te am jafe-jafe ci moo xam nga nekkoon ci pëlis sax ñu fekk la ba ci biir koso takkal la ndomb gi dem sam na yàlla di nga génn bu doo boo ci duggoon tamit accident am nga duggandoo ci biis lu ma soixante-dix personnes ñëpp buñ faatu woon ni ndomb gi incha allah mën na laa aar ci kàttanu sunu borom bu fekkente ne tamit da nga ko duggoon masalan dugg li mel ni géej tey maanaam jëmmi gaal ga galab yow sax boo moytuwut maanaam ña nga duggandool ci oto bi mën nga leen a sauver ndax balaa gaal ga di lab incha allahu di ngeen gis leen wallu wala suwaat ñu ñëpp buñ demoon ba labit yow moom di nga doo lab. ñëpp ko mhm. xale. ko am na waaye nag képp ko ko mën a am. bala ñoo bala ñu laa wax ne la mën nga ko am dañuy woote ban wax ne la mën nga ko am te bu fekkente ne mën nga ko am it euh, bu fekkee xale nga dafa am ay gaaw yoo ko war a gaw bu fekkee mag la dafa am ay gaw yoo ko war a gaw. <laughs> am na solo am na solo. balaa ñoo ñëw ci beneen ndombo gi ndax dañ leen di teglante. Mm-hmm. ñu jeexal ci ndombo yi door a ñëw ci listixaar ndax looy dugg da koy seet ba pare. Mm-hmm. beneen ndombo bi ñu ñëw ci d'abord. waaw bu dee ndomb gi nag moom daanaka yàgg nañ ko fee wax waaye mësul koo wane. ndax lii mooy ndomb ak njàjja ñaajjal la tudd ñaajjal mhm. xëy na yàgg nañ koo liggéey di kii waaye gis nga ndomba yi képp koo xam ne takk nga ko muy xeeti ñeenti ñeenti xibla yi boo jublu muy penku soowu saalum gànnaar foofi manti taxaw ci kii di wut maanaam kat takk bootal yi ñoo ko tax a jóg mhm. lépp loo xamante ni am nga fi ay noon wala xéew wala nga sañ ci sa place bépp xéewal bu nekk ci ñeenti xibla yi insha allahu dina la fekk si fi nga nekk bu fekkente ne tamit mbir yooyu lijjanti la moo xam procès lu man di doon wala sax nga doon nit koo xam ne dangay lijjanti am mbooloo si kàttanu yàlla ñeenti xibla yi ñu la wax yépp nit dina la fekk tey ñeenti xibla yi boo xasee ba seera ndomb gi ba dem foo fi mën di jublu ci ñeenti xible yi moo xam looy lijjanti wala wàllum business lu man di doon insha allahu di nga ko am ci kattanu yàlla ci lu yomb ndax yomb gi boo ko gisee dëgg-dëgg nag wàllu xéewal dëgg moo ko tax a jóg nit ki nga xam ne day day nekk ci àdduna di lijjanti pour am wërsëg pour am wërsëg woo xamante ni wërsëg wu lew lay doon tam man cee jariñu mu jikko képp koo xam ne looloo ko tax a jóg insha allah boo takkee ndomb gi suñu xel dina dal ci yow comme mën naa ne du la déggee maanaam kuy lijjanti lu bëri loo xam ne parfois day dëgër mhm. su amoon ndomb gi rek yàlla mën na koo yombal waaw kay noonu looloo ko tax a jóg nag bu fekkente ne sax wàllu comme suñu mbokk yi ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu commerce muy dëgër lool nga xam ne da ngay sañ ci place am bien yi am financement bu dëgër place bi mënta dox mhm. wala ngay liggéey di wër di jaay lépp lépp maanaam daal lii boo ko takkoon incha allahu àgg na ci loo xam ne maanaam yoon yi ngay jaay sax pour soqe ko moom dina la ci ginde bu doonte ne da ngay da ngay liggéey di wër mm. bu fekkente ne nag da ngaa yor marchandise boo xam ne da ngaa toog ci benn bërëb mm. di jaay incha allahu ñeenti xibla yëpp de la dikkal di la jënd si ba nga ba nga yéemu ci yàlla si. dem sama am na solo sëñ Mor ba dañuy ñëw balaa ñëw xuusandi ndax euh, il faut ñu ñëw ci listixaar ndax looy dugg. Mhm. di ko listixaar ba xool. Mhm. li nekk ci biir ak yooyu noonu balaa nga cee dugg. Mhm. wàllum listixaar ñu ñëw ci. waaw bu dee wàllu listixaar listixaar moom yaakaar naa doonatul loo xam ne dañ koy laam-laame. ndax nit ki nga xam ne tey bëriwaana boo xoolee yaakaar naa euh, ñu yëngatu ci métier bari na ñun rek nga fi gis nit di ñu woo ñu ñeme laa xaaral te joxaguñu sa xaalis maanaam àgg nañ ci nit ñi jëflanteel ñeme nañ leen a xaaral ba noppi ñu soog ñoo jox xaalis gi nga xam ne mooy weexal gi. ndax dama ni li may wax toujours di wax naa ne xul hal yastawi alladina yaxlamun wa alladina laa yaxlamun maanaam ñi xam duñ bokk ak ñi xamut ba yow mi diini. bëri na nag lu bari dara am nit ñi jug ci nekk ci di wax wax wax wax waaye noonu la demee ndax lépp loo xamante ni nit ki da koy def tam doon ay caaxaan léegi sunu sëriñ bu tedd ba daan wax si Abdou Lahad Mbacké daan nañ ay fet maanaam naxe moom ñetti fan la mooy bis bi nga koy def ak bis bi ko nit ñi xam ak bis bi la bàyyee kon loolu lu lu dëgg du yàgg alxaqu min rabbikum wa man saa afal yumin wa saa afal yakfur yaa ngi dégg te tamit maanaam li dëgg fépp maanaam loolu lim jublu mooy dëgg lépp looy def mu doon dëgg rek def ko ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi waaye liñ naan alxaqu saabitun wa amal baati wa in ala fa saaxiqun wa saafil maanaam dëgg mooy sax bu fekkente ne neen la nag doonte sax ay ay maanaam doonte bu fekkente ne neen moo moom nga li ngay def ay neen la doonte maanaam ci ay waxtu rek lay yem waaye bu fekkente ne dëgg nag moom moo mën a sax ba ilaa yow mi diin euh, mhm. dañuy del siwaat ci listixaar ndax sëriñ si léegi dañoo gis ku jóg di listixaar mhm. bëggoon naa xam nan ngay listixaar ci fan la wala ci weer la waaw bu dee listixaar moom ñu koy defal nit ki bu ñëwee da nga ñuy jox sa tur ak sa tur waajur wu jigéen ñu fanaanoo ko leeralal la ko mhm. am na si ñoo xam ne tamit bu fekkee liñ leen di defal am na beneen listixaar boo xam ne ramlu la tudd kooku dañ koy def bu fekkee ne nit ki dafa am aajo joo xam ne dafa jàmp lool waaw ramlu la tudd ramlu bi mm, waaw seet la maanaam dañ ko koy def si li saxaar la waaye mën na sa koo def bañ ko fanaanoo ndax loolu mi ngi jóge ci yenn yàlla Idris nit ñi boroom xam-xam yu bari xam nan ko mm-hmm. xam nan tamit aslu ba waaw kon loolu moom lu wér la waaye nag képp koo xam ne ñëw nga am aajo ak lu mu man di doon nga ñëw di ñu ko xolloo maanaam bi nga xam ne dañ koy fanaanoo moom boobu moo moom moom ci leen gën a mën a leeralal mbir yu yaatu waaye bu fekkente ne nag léeg-léeg day am nit ñoo xam ne dañuy bëgg loo xamante ni tey dañ koy bëgg a seetlu ci bis bi léegi nag bu fekkente ne ku mel noonu dafa ñëw kooku bu ñëwee mënees na ko xoolal fekk jant bi so waaye nag bu fekkente ne ki nga xam ne dafa ñëw am aajo joo xam ne mën naa xaar kooku mënees na ko koo fanaanoon waaye képp koo xamante ni wax maanaam xoolal nan la ci maanaam boo doonte dangaa yor sax malaat mu tëdd lalu hôpital tey bu demoon ba nga xam ne te ne war war na faa faatoo sax maanaam maanaam listixaar gi da koy génne bu fekkente ne nit ki nga xam ne tamit da nga da nga am lu demee ne ko comme wàllu soxna nga koy xool ba xam lu gën la ci ñoom ndax tamit bëri na ndaw yoo xam ne ñu bari dañuy jug ci commerce yi wala ñu dem tukki ji am xaalis dàmbali di am xaalis bunt buntu sa tijjee ko ñu jékki-jékki takk loo leen soxna ñu takk soxna soxna sin takk seeni biddiw ñàkk dëppoo ba tax conséquences yooyu day am ba mooy waral am-am bi nga amoon jeex loolu nag buñ ko waxee dañ ciy leeral ndax tamit ndur buñ la dee déglu ngay ngay waxi xam-xamit da ngay leeral nekkul bëri waa na ñu naan ay gaaf ay gaaf di wax waaye doomi aadama ay gaaf loolu amul lenn moo am biddiw yu ñàkk dëppoo moom mooy am tey masalan yow seex yow mënoon nga am benn jigéen goo xamante ni mën naa dëppoog yow bon ci fukki nit mënoon nga am jigéen goo xamante ni mën naa baax ci fukki nit bon ci yow noonu la affaire yi demee léegi nag boo ko xamut téem nga jëm doomi jàmbar nga na ay gaaf la nangam nangam di tooñ te fekk ni demewut noonu ne mën naa seen biddu mën naa bañ a dëppoo mu dem dëppoo keneen jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mor Ba dañuy jàll ci beneen ponk mu bokk ci wàllum rab du ma ne rab nag mhm. mën naa ne bokk na ci jaamu yàlla yi mais bokk na ci li nga xam ne da leen di sonal te da ci seen bunt yu bëri yoo xam ne dañ ciy dugg di koy fëgg mhm. wàllum rab ñu dellusi waaw bu dee wàllu rab dafa am ñetti façon rab am na rab bu naan rabu ndono bi nga xam ne nit ki dafa ay maamam dañoo yoroon ay xàmbu mu daal di juddu daal di rab yooyu topp ko am na rab boo xam ne rabu berfee nga leen koy wax am na rab boo xam ne rabu sën la am na rab yu bari yoo xamante nii tey bu dee rabu ndono bi boobu mën na laa mën na laa dugg mais dina la protège ci wàllu nit ñi waaye day am fiiraange bu mu dox si biir sa bu doonte ne da ngay liggéey mu leer na la tey boo doon sa am am toll na fenn fi mën ngaa am nga takk soxna bu doonte ne danga nga cee am masalan rab bi nga xam ne faru rab bu jigéen la comme góor ki mu leer na sa am am bu demee nenn ñi mën ngaa takk soxna maa xam nag lam la daan conditionné nga koy def comme di tëdd di sey ak moom ak yooyu yëpp mënatut am. boobaa day téye sa wàllu wërsëg. Mm-hmm. fermé ko. Mm-hmm. bu fekkente waaw bu fekkente ne beneen euh, jigéen gi la ko noonu da koy def. Mm-hmm. tey nit koo xamante ni day ñëw war laa takk so war laa takk kooku day gis ngay xuloog moom muy def maanaam nit ki di la soof te pourtant day doon góor gu mat góor doon góor goo xamante ni ku ñëpp bëgg lañu doon mu am ay xéewal ak yëpp doon nit ku yiw waaye dalay may sa diggante digganteek moom ngeen di xuloo ko def yëf loolu rab da koy yàq mhm. bu fekkent ne bu dee bar rabu berfeng bi mooy yi nga xam ne nit ñi nga xam ne yàgg naa ko wax mhm. bëriwaa na ni ñoo xam ne bu école tëjee yu demee na ñuy dem ci yenn milliers yi moo xam ci yenn îles yi ñuy dem di fa def sorte yu demee noonu foofu day am rab yoo xam ne dal fay nekk muy rabu euh, berfeng bi nga xam ne moom day taxawal rek daanaka ci îles yeeg looy demee mhm. yooyu nag ñaare sàggan yi ñuy def ak njaramu neen yi ñuy def mën nay waral mu leen di dugg bu dee bu ñetteel bi nag boobu mooy rabu sën kooku kim dal ñaare incha boobu bu fekkente ne da koo dugg dëgg-dëgg mooy waral dof yi ngay gis ak yooyu ñi taxawal ak yooyu yal na yàlla jégal ci kàddu gi. Mm-hmm. est-ce que rab nag aussi mën naa tee nit ba du am doom to est-ce que am nga saafara yoo xam ne lu mel ni ay téere am nga ko ci. waaw loolu am na am na si téere boo xam ne comme nit ki nga xam ne tey dafa taxawal mm-hmm. maanaam doom kooku bu ñëwee incha allah des na ko xool ndax rab mën na ko waral yu si bari tamit dañ nekk ci biir kër ñaari wujj nekk fa kii giñ na samay doom ñooy gën doomi nàngam kii gën ni tamit samay doom du lu maanaam doomi kee doon am lu samay doom amut loolu nag bu amee ñaari wujjante tey am léeg-léeg ñuy yàqante di defante tey toujours loo xamante ni day négatif soo maanaam so doomi jàmbur yeneen yi rek maanaam da nga koy def léegi am na ñu bari ñoo xam ne dañ leen a dëj ci kër yi mënuñoo sëy mm-hmm. comme it dañuy jéeg taaru lool dara du nekk ci ñoom ci ay kii yooyu ñu mën nit mën leen a xool sax ban dëppoo waaye mënul leen a génne kër gi loolu da koy am ñu bari dañ leen ci liggéey am na ñu bari ñoo xam ne tamit rab moo ko waral léegi nag bu fekkente ne loolu dafa am incha allah buñ ko xoolee ba xam ko jëmmi téere bii moom lan lay takkal mm-hmm. képp koo xamante ni maanaam eh, wàllu am doom dalaa incha allah buñ la ko takkalee rek dem soon na yàlla dinga nga di nga di nga am doom. ñaata fan lay def am da koy waaw bu ko bu ko takkee nag. Hmm. maanaam téere bu fekkente ne da koo da koo takk buñ ko xoolee ba nga xam ne mën naa nekk. incha allah mu mënul laa àppal waaye diir bu fekkente ne jaxasu ngoo sa sa sa borom kër. mun la defalee comme am na càngat yoo xam ne mënees na la koo defal mu dindi li nekkoon ci yow bu doonte ne tey dañ laa liggéeyoon dëj la fenn ba nga xam ne mënoo am comme ngay sëy fenn ñu ne la doo am doom. ñu liggéey la foofu kooku mënees na laa dindi li nekk ci yow liggéey bi nekk ci yow. boobaa buñ ko dindee ba noppi nag incha allah mënees na laa takkal téere bii. buñ loo ko takkalee daal diiru balaa yàgg incha allah di nga ta di nga di nga ëmb dara. Mhm. Mhm. dañuy dugg ci beneen kii lu bokk ci wàllum tul ndax tul mën naa ne jamono jii ñu bëri dañuy dox mais. Mhm. bokk na ci loo xam ne kii war na koy fàggandiku ndax euh, mën nañ agression bi bëri na ak wàllum ñaawteef yi wàllum tul te du fekkee ne am na gàllaaj boo ciy joxe lu mel ni ay béjjén nga mën wane ko. waaw bu dee wàllu tul comme béjjën bii dañ ko ciy joxe béjjën bii moom xëy na ñi ñi ngi ko daan jëflantee nit ñu bari waaye taxutoon ñu wane ko waaye nag dafa dem a dem ba nit ñi léegi maanaam di ko laaj laaj gu yéeme goo xam ne béjjën bi tul a ko tax a jóg mm-hmm. boo xoolee daanaka ci béjjën bi daa am luñ ci sox loo xamante ni tey buñ ko leeraloon nit ñi mm-hmm. maanaam da ngay jàpp ne lii sax wërta mën a ne Mhm. waaye képp koo xam ne takk nga ko mhm. moo xam tey nga nekkoon ci bërëb boo xamante nii tey da ngay am bërëb yooyu liggéey comme réew yi nga xam ne dañoo doon xaw réew yu xaw a dansé comme lu demee ay États-Unis yi demee noonu nga nekk mhm. nga xam ne ñoom seeni nit autorisé na leen ñuy mën a yor ngàndaay ak yooyu ndax loolu am na fi bëri waa ne mënu moodu yoo xam ne dañuy nekk bitim réew jekk-jekk gis tubaab bu joteel mu fital leen wala yu demee noonu képp koo xam ne yor nga ci béj maanaam mbéjën bi nga takk ko mm-hmm. ndeem soob na yàlla moom fital ak jaaseeg paakaa ci yam mm-hmm. dara du dugg sa yaram mm-hmm. ndeem soob na euh, euh, nga baal ma côté boobu am na ñoo xam ne aussi côté takk dañ koo bëggul bu fekkee koo takk ci ndigg mbaa ci ñaari euh, sa biir yi ndax mën nga koo takk fenn sa kër lu mel sa buntu néeg ndax am takk waaye lii nag moom bu fekkente ne takk gi maanaam quarante et un jours boo ko takkee mën naa màndi sa yaram ba boo dee dem mën nga koo gaw ñi takk ko waaye nag li gën a dalum xel moom booy dem nga fekkente ne mënoo koo takk ni muy feeñ nga ràngoo ko sa wet yi. maanaam moo ci waaw moo ci gën a dalum xel waaye nag gàllaaj moom quarante et jours boo ko takkee ba mànd sa yaram mm-hmm. boo ko tegee nii gaw ko tamit incha allah day mars mm-hmm. am na mhm. jërëjëf wàllu kii guro bi nag ñu ñëw ci. Mhm. ndax gis naa nga teg fii lu mel ni guro. Mhm. guro bu weex bi. waaw bu dee wàllu guro bi comme bii yàgg nañ ko bari waa nit ñu bari ñoo dem ñoo xam ne yor nañ biir nga jàpp ni biirum naturel la wala dañuy naan galaas wala dañuy noos wala yu demee noonu te fekk ne noob gu bari moo nekk seen biir. léegi nag bu fekkente ne loolu am na ci jëmmi gure gi ñun ci la ñuy tojee noob gun man di fekk sa biir nga dox ko moo xam noob goo xam ne fukki at la def sa biir mm-hmm. insha allahu boon la defaree gure bi mm-hmm. liñ ci bind nag lu simple la mm-hmm. puso la ñuy wut bind liñ ci bind ci gure gi jox la nga lekk gure gi boo ko lekkee ba mu jeex insha lépp lu nekk sa giir suñu yow xeetu noob am na si yenn noob yoo xam ne tooke lay doon ci biir day dem ba ci biir mën naa jural nit ki wéradi mhm. wala mu jëral ko yu demee bari nañu yor mettiti ci biir ak yu demee na mu yàgg lool ba daanaka moo leen di génn sax àdduna mhm. loolu dafa bari ñu mhm. bari ay nopp xeeti njabar yu bon yi moom moo koy def te lii moom lu ko ci gën a gaaw gisuma ko ci àdduna benn feebar boo xam ne mën naa ne moo lëmb réew mi te fu mu am kër ga du neexe noonu bu wàllu néew kàttan wàllu ngóora bi léegi néew kàttan ñu de si sëñ Mor waaw bu dee wàllu néew kàttan bu fekkee nit ki dafa ñëw euh, tële te télé gi dab ko incha allah bu ñëwee des na ko ci defal loo xam ne day dindi télé gi spécial bu fekkente ni ki nga xam ne dafa néew kàttan kooku bu ñëwee dan koy defaral loo xamante ni traitement la koy jël fépp foo xamante ni dareet bu dee dafa nekk ci loo xamante ni ay taq-taq la dina ko lancé ba mu set ñu defalal la benn galaaj benn saafara soo xam ne spécial la moom da nga koy naan mm-hmm. incha allah buñ la defalee traitement bi moom àgg. nga jël saafara si naan ko guddi googu nga njëkk a jaxasoog sa borom kër sa sa sa soxna incha allah dina yëg ci yow loo xamante ni mësu koo yëg ba ngeen àndee ba fi toll Mm-hmm. jërëjëf dañuy jeexal ci benn mën naa ne cas d'actualité ndax moom nañuy coow ci fan yi mm-hmm. mu bokk yàggatul dara xam naa saison bi léegi mu commencé mu di wàllum sport ñu naan ko lamb mm-hmm. ci lamb ji nag duñ ko waxee seen xel day jëm ci Modou ak euh, Ama ndax fi mu ne nii mën naa ne duñ doon buzz mooy buzz bi moom la ñuy coow fi mu ne nii ñu del siwaat ci waru làmb ji ñu coow Ama Baldé Modou Lo bi nu ngeen ko gisee en tant que bu dee wàllu làmb ji bëri na ñu may gis ñu ci génn ay saltige taxaw ñi naan saltige Modou loo ñi naan saltige Ama balde taxaw di wax def yéegu waaye làmb jooju bu fekkente ne nii mu kon nii fekkente ne war yi ci nekk maanaam wax yi ñu ci wax benn war amu ci ndax duma ne nekkuma ci am na ci benn euh, sëriñ boo xam ne benn benn mbër moo xam ne fan yi jàll tase na ak moom xëy na ban am lu ñuy wax loo xamante ni taxagul mu sotti waaye bu fekkente ne li ma ci gis maanaam ñëw nañ tan tan tan tan waxtaan ba juboo incha allahu làmb ju continuer dem soob na yàlla moom yaakaar naa loxo dina dem gémmiñ wax yu bari dina tebbeeku mhm. ndax tamit gis nañ ci maanaam problème yu ci am ba sax léeg-léeg daanaka mystique bi boo xoolee tàmbali na guddi yi ñu toll ba daanaka yenn ci yenn mbër yi sax seen jege ñaale yi ñu ngi am ay problème di am ay feebar ak yu demee noonu loolu lépp xëy na dëgg-dëgg xamagun li ci nekk ndax boo xoolee ci ñaari kaw mbër yi am na si koo xam ne daa nekk rakkam jamono ji ñu toll mi ngi nekk ci tawat waaw mi ngi nekk ci tawat te hmm. loolu lépp daanaka mystique yi ñoo tàmbaleegul xëy na dëgg-dëgg nag duñ ko xam dañuy jàpp ne maanaam ñu ngi naan ay feebaru nangam nangam waaye mystique dëgg moo ci feeñ hmm. te it bu fekkente ne nit ñi ndax làmb ji mën nañ ni taxawagut nii nit ñi di wax ak a def yëf waaye maanaam ñoom si jëm bopp ñaari mbër yi kenn ko si ne xam nga ne da nga taseeg sa morom. Mhm. moo tax fi mu toll nii seen xarga xuufa yeeg seen gàllaaj yi lépp tàmbali na. Mhm. te képp kuy jege ñaari mbër yi te amoo entourage wala amoo kaaraange gu dëgër. ndem soob na yàlla li ñuy jëfandikoo dina la dal te la dalee mën ngaa a fekk bisu làmb ji. am nañ yaakaar làmb ji taxawagut mais dina taxaw. mais mhm. dañoo seetlu leen ci ñaari mbër yi war a daje. di Modou Lo ak Ama Balde. Ama Balde ci boppam dañoo gis euh, jegewaale kuñ naan Gilles Balde Junior dafa feebar. waaw loolu laa la wax dama ne la bëriw mystique bi moo tàmbali jamono jii ndoll ndax laataa loolu di ko dal déggoo woon ñu ne feebar na laataa ñuy wax waxi laa mu ci déggoo ñu ne feebar dama la ci jo loolu sax taxul ma lay wax. Mm-hmm. taxul ma lay wax ne la maanaam moo moo tax lii dal ko wala ndekku ne foofu laa sukkandiku waaye li ma ci gis laa la wax nga xam ne jamono jii moom feeñ na ci loolu laa la ci mën a jox misaal pour nga xam ne maanaam ñoom ñaar seen wàllu mystique tàmbali na. léegi nag li ci am ba am ñoom seen encadrement yi nañ jug ci seen bopp ñaari mbër yi tamit ah, dëgg-dëgg ku ci xaw a sàggan daal gëm naa ni sa moroom dina la daan. Mm-hmm. ndax it moom gis naa fii moom jël bu leer nañ ci jamono jii ñu toll. Mm-hmm. waaye nag maanaam ñun moom nekkul ñoo xam ne dañuy taxaw ci actualité ti làmb di wax ne kii mooy def nangam nangam ndax eh, yareewul noonu te it suñ comportement nekkagut li loo xam ne dañuy siiwal lu ñëwagut ñu koy wax. waaye nag gis gi moom bu amee rek da koy wax ne gis naa. Mhm. en tant sëriñ gis-gis bi du ne nii duñ doon wax ci ñaari kër yi duñ doon wax ku jekku fi ne nii kan moo gën a jekku ndax xam naa combat bi dina taxaw moom. waaw jekku gi moom laa la wax nee la jamono ji ñu toll am na si mbër moo xam ne bu yàggut nii sax yaakaar naa matagut deux semaines taxaw nan wax yàlla xam ne loolu taxaw nan maa ngi moom waxtaan nan waxante ay kàddu mhm. yàlla xam ne loolu. bu yàggut xëy na nag. maanaam foofu foofu ko nga ko junj foofu pour bu ko jël wala na ko jël. de lan waxante moom mënuma koo wax. waaye li nga xam ne mën naa la koo dogal ci barki alxuraan billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ma tëggut deux semaines xaw trois semaines maa ngi mbër mi taxaw nan waxante. waaye nag lan waxante moom secret la duma ko mën a wax fii. Mm-hmm. léegi nag loolu foofu laa mën a yem. Mm-hmm. waaye nag incha allahu moom buñ continuer bu fekkente ne ay maanaam jëmmi làmb ji mën nañ cee liggéey te continuer insha allahu moom maanaam xelam mën naa dal moom mi nga xam ne waxante na. Mm-hmm. di waaw di wax ne ñu ngi ñaan ñu maanaam lenn sax lan waroon a gën a njëkk a tàmbali muy comme ndax ñun ñi ngay gis yëpp ay doomi daara lan te ay sëriñ daara lan jàngale naan bëri na nit ñoo xamante ni arxaan ji nekk seen dënn ñun ñoo ko def ci moom bu yàggut dañoo gis suñ mbokk daara mun gis ñun dikk di ko xaadim géey mu nekkoon fële ca côté euh, Cilmaxa euh, fële la nekkoon ci côté Njaañ bokk foofu la daan jàngale waaw kay mm-hmm. foofu la daan jàngale gis nañ ni euh, état bi téye na ko jamono ji ñu toll ci wàll yoo xamante ni xëy na yàgg nañ koo xeexee daara di ko wax waaye li nga xam ne mën naa leen koo wax nga xam ne résime bi ñoo fi nekk bu fekkente ne maanaam ñi ngi sàkku dara ci loo xamante ni deux mille élections yi deux mille vingt quatre la. yin bëri présidentielle yi yaakaar naa bu fekkente ne bëgg nañ dara wala seen campagne neex wala ñu bëgg ak falu dara. Hmm. maanaam doomi daara ji nañ ko bàyyi. loo bëgg a waaw buñ ko bàyyiwul hmm. bu fekkente ne taxawoon nañ ci benn sëriñ wala ñu taxaw fenn foo xamante ni nit garanti leen ci wàllum am am ak lu man di doon. Hmm. buñ tëjee kii ndem soob na yàlla bu nu tàngaloo xol waa daara yi ñoom ñëpp dina daanu te bu nuy daanu daanu gu métti lay doon lu wér a wér laa la wax lu wér wér laa la wax doonu sax loo xamante ni dañ koy inventé wala ñu nekk ji xalaat ak def yëf. waaw wax nga de mais ñu ko wér ci baatin la baatin bu wér ñun baatin la ñuy yëngatoo ñun alxuraan alxuraan lu ko gën a màgg ci alxuraan alxuraan lii yëpp ngay gis fi mu toll nii yëpp ngay gis ci àdduna wàllum ordinateur ak lépp lu lay jaaxal ci àdduna boo demee ci alxuraan fekk ko fa alxuraan moo dajale lépp moo tënk doomi aadama yi yëpp lépp lu nit di def képp koo xamante ni yaa ngi xëy di nekk ci Sénégal di fi yeewoo di am jàmm alxuraan moo la mën a may jàmm. bu daal nguur gi mhm. su fekkee ne tëj na ko fii ba élection présidentielle. lu mu mhm. gis ci yéen gis ci ñun la te li problème bi mooy wax ji wax ji sax li gën a yéemu mooy. Mhm. Euh, képp ko ci gis ci Sénégal mu fi yeewoo nitu daara yi ñoo la may jàmm ñiy jàngale alxuraan buñ xëyoon benn fan. billaahi lasi laa ilaha illaa huwa barke alxuraan buñ xëyoon benn fan ci àdduna benn arafu alxuraan jibut àdduna tukki sun borom yamale foofu ndend bi lem ko kon kooku buñ ko xasee ba jàpp li feeg bawun ko dina am mbett mu leen yéem foofu nag fa leen mën a wax ji wax di wax ne wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf